ci kàddu borom bi tabaraka wa taala daara ji nag oustaz Mouhamed Lamine Diop daara kennal yàlla moom moo ñëw di wax a yéen loolu ñu gën koo xam nag ci kennal yàlla ci wéetal yàlla buur bi tabaraka wa taala loolu laa ñëwee tey jii eh, taxaw fii pour waxtaan ak yéen ndax dañoo bëgg doomu adama yi dee dem àjjana bëgg ñu dee dem safara loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk waaye lii musrik yi ñoo koy liggéey a ñi nga xam ne ñoom dañoo réer loolu mooy li ne moo ci nekk nañu dellu ci borom bi tabaraka wa a fi nekk su ma tekkee sama galaaj nan laay def man la boo yeewu suba rek neen alhamdulilahi rabbil alamin képp ku yeewu sant sa borom te bokkaale wuloo ko yàlla dana la suturaal bi isnillahi taala booy wàcc lal bi nga ne onze billahi min cheytan rajim nga jàng faatiya faatiya dong mën na koo teg waaye boo mokkee ay tunku si nga jàng ko jàng qul a onze bi rabbil falaq ak bi rabbin naas loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk boo ñu ne alquran nga tëjee ko ay guddi ci yaasin فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء له توجان ولكن اللهم صل سيدنا محمد ملك ملتوك من جنة ملتوك لن تلوت برم بتارك وطالة دوم عدم بيه وانت دين دقي دقي يو دوم عدم من جمرك دي ديام لكريام كريام بچه دسم الأوري ديام بن لغي بلا دوم فرد او دنيا مجد دقي غوب كي دم بي واندق ديام كريام جاگر وايت اي خلال بودم فرد تلو نيني رانواتي مطرق دي مطرق دي نجد كنت بور او غالا دي بني نخمي امو سان نجرين daara kennal yàlla moo leen gën ngir waxtaan ak yéen ci wéetal yàlla gii ngeen gis buur bi tabaaraka wa taala mbokk yi li yëpp ci ay jàmm yàlla lañ ko tekkee waxtaan a ñoom ci diine ñoom nga xam ne ñu yore seen diine loolu moo tax ñu tekki seen gàllaaj yi loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk lii ay caaxaan kese la diine moo leen ci nax rek bépp gàllaaj boo gis muy def réaction maanaam buñ la jamee paaka du dugg buñ la dóoree jaasi du jàll jinne moo lay nax te bés bu demee bàyyi la fa boo jamee rek di nga dee soo déggee diw gàlla jam toj na lu muy tekki allahu a allahu akbar muhammad benn julit ñëw na de benn julit ñëw na de benn julit ñëw na de wallaay benn julit ñëw na warabul kaaba ngeen ko xoolal kii borom léegi la ko joxe léegi léegi la ko joxe xoolal kii mooy ab julit nag julit bu réeree buñ la gindee da ngay nangu jullit bu réeree jullit gi ndey da ngay nangu loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk def na lu bër loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk léegi nag saa boo yeewoo santaan sa borom yàlla alhamdulilahi rabbil alamin booy wàcc lal bi nga ne auzu billahi mina shaytan rajim nga jàng fatiha benn jàng benn ayatu kursi jàng falaxi ak naas yi malayka moo lay topp da ngay am sécurité comme nit ñu ko amee xoolal rek maa ngi ànd sama njaboot di woote ci kennal yàlla ana jabarkat yi nekk ci luuma bi mënuñoo kortu sama doom yi ñu dee mënuñoo kortu sama jabar mu dee mënuñoo kortu sama taalibe ma dee xamuñu dara dañuy leen di sànq ngeen ànd ak ñoom dee dem safara njabarkat moo gën a bon ci àdduna bi laa lay wax ni ñoom ñoo tas kër yi ñoom ñoo tas dëkk yi ñoo tas marché yi ñoom ñoo yàq kër yi ñoo yàq entreprise yi moo tax Sénégal mënut a développé njabarkat yi ñoo tax Sénégal tardé nañ ci bàyyi xel bu baax ci kàddu borom bi tabaraka taala julit nag moom bu ñu ko gindee dafay nangu léegi nga ne ma léegi tekk naa samay garat léegi nan lay def man la boo yeewoo ngeen alhamdulilahi rabbil alamin ndax li ko waral kat moy jaamu yalla buñu ñu tëddee guddi maanaam ñetti nit la doon buñu yewu suba kenn ka day dé kenn ka day feebar kenn ka day yewu ci jamm yow mu yewu ci jamm ya mëna a faj ya mëna yaa mën ki dee kon ya waram alhamdullilah rabbil alamin te ko sant ñu dal la kep ko sant sa borom ci bokale wu loko yalla dana suturaal bismillahi taala léegi nag booy wàcce bi da ngay wax billahi minash shaitanir rajim nga jang fatiha fatiha rek doy na sëkk waaye boo mokkale ayatul kursi nga jàng ko jàng falaki ak naasi boo mënee alquran nga tëjee ko fa subhana allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa turja'un wala nga ni allahumma salli ala sayyidina muhammad malayka moo lay waaye nag dina du la topp da ngay am sécurité comme man Mouhamed Lamine Diop ni ma amee sécurité Sénégal fu ma lay taxaw fu ma lay taxaw xoolal ñu may tooxale jabarkat yi xoolal ni may tooxale awliya seetaan yi laa lay wax nii te mënuñ ci man tous ñu ngi ci marché bi maa ngi tudd 33 ans maa ngi woote ci lii 33 ngi woote ci kaddu borom bi taaraka wa taala am naa ci daara yu bëree bëri nag tableau yu mat na juróom tableau yu mat na juróom bismillahi taala na leen xam ne yàlla fi nekk nañu bàyyi njabarkat yi nañu bàyyi njabarkat yi ñu ñu tooxal loolu mooy li xam ne moo ci nekk lii ngay gis nii nekkul loo xam ne dafa yomb waaye ndax li ko war a mooy boo àndul ak sa borom di ko jox dañ la kott doo léegi na ñu ak ñëpp ñoo xam ne ay seetaan la ñu. ñu leen dellu si yàlla buñu tabax wa taala te xam ne yow yaa ngi ñëpp yàlla na ki nga xam ne moom ñu mën a aar moom ñu mën a yor suñu bàyyi xel ci ne yaa ngi leen a taxaw yàlla dund ñu lañ ci bàyyi xel bu baax ci kàddu borom bi tabax wa taala. Adam même julli nga balaa ñu wàcc. xamuloo fan la naka la xamuloo xamuloo kañ la xamuloo fan la xamuloo naka la tey jii may wax ak yow nii am na ñoo xam ne ci luuma bi dañuy yendu waaye balay luuma bee dellu ci ñu nekk ci biir suuf war a bokkaal loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk jërëjëf jërëjëf macha allah saa boo yeewoo rek mu roog Mouhamad kanam ñëw na saa boo yeewoo rek waxal alhamdulilahi rabbil alamin boo yeewoo santal sa borom ci ñi tekki seen galaaj lay waxal de boo yeewoo da ngay sant borom bi tabaraka wa taala képp ku yeewu sant sa borom te takkaloo benn galaaj maanaam yàlla dina la suturaal comme ñun ni mu ñuy suturaale amuñu benn problème fu ne neex la ñuy dugg yaa ngi degg boo wàcc lal bi nga ne auzu billahi mina shaytaan rajim nga jàng faatiha faatiha rek mën na koo tëj faatiha rek bu dee moom kese nga mokkal kese nga gëm ko noonu yàlla mooy teel boppam dina la jubbanti dina la yokk loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk ci kàddu borom bi tabaraka wa taala njabarkat dañ lay nax rek xoolal li fi mu nekk nii tey jii xoolal boo tekkee galaaj yi boo agsee police lan lañ lay wax tekkil sa galaaj tekkil fu nekk loo xale de boo demee hôpital war a faju ñu la tekkil sa galaaj boo war a dem màkk ñu la tekkil sa galaaj boo dee ñu tekki ko xoolal rek boo dee ñu tekki ko boo dem Makka ñu tekki ko boo feebaree ñu tekki ko boo dem kaso ñu tekki ko kon kañ la lay dimbali lii ko ko xool da xam ne da nga waaye di sax loolu moo tax nga ci la ngaamu amul benn njëriñ tekki leen seen galaaj yi ngeen tënku ci borom bi taara koo taala yàlla moo leen mën a dimbali waaye jinne mënu leen a dimbali te galaaj noonu la seere nag galaaj ngay gis ni noonu la seere yombul dara maanaam am ko yombul aw ko yombul takk ko yombul loolu mooy li nga xam moo ci nekk gàllank tudd gàllankoor la tudd gàllankoor daf lay gàllankoor sa diggante ak sa borom ndax boo nee yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wax ji du nekk dëgg rek la ñuy jaamu ci wala ba ñuy sàkku ndimbal wax ji du nekk dëgg nañ ci bàyyi xel bu baax ci kaddu borom bi tabaraka wa taala am na koo xam ne nag kenn mënu koo yee ci diine kenn parce que lii ak jal bi li ñuy bëri nii yëpp tey la gaa yi gën a mën a takk gàllank kenn mën na leen teg seen galaaj parce que dañoo war a dee dem safara loolu mooy li nga xam nekk ndax bokkaale boo ko deewee da ngay dem safara yàlla moo ko wax yàlla nee na boo deealee bokkaale boo dee safara ngay dem boo dee takk galaaj ba dee yàlla nee na da ngay dem safara bisimilahi taala loolu mooy li nga xam ne moo ci nekk nañu dellu xam ne yàlla rek fi nekk yàlla moo ñu mën a dimbali waaye jinne mënuñoo dimbali nit mënuñoo dimbali Sénégal bu fekkoon ne takk galaaj mooy tax mu développé kon Sénégal mooy raw Europe loolu mooy li nga moo ci nekk waaye lii daf ñu tardé loolu mooy li nga xam ne moo ci métti lii daf ñuy tardel amul benn njëriñ mbokk yi léegi bàyyi xel bu baax yàlla subhanahu wa taala moom rek fi nekk yàlla moo ñu mën a dimbali yàlla moo def ak jàppandal ci ñun yàlla moo ñu yoral lépp biir lillahi taala nañ ci bàyyi xel bu baax te kàddu borom bi Mouhamed moytu bala ngay fël kii bi